ne kàddu yi nga xam ne moom la Seydina Ousmane wax mu ne gëm nañ ko bu baax a baax mu ne loolu rekk mooy di ci am solo yitte ji ak yéene ji ak passeer mu ne loolu rek mooy di ci am te xam nañ ne lii mu fi wax dëgg la ci moom kon loolu rek mooy di ci am solo ñoo ngi am mbégte bu baax di am yaakaar bu baax di sant di gërëm di ñaan bu baax yi itam suñu borom mi ngi def a dindi mu gàttandu leen ak tawfiya ba lépp li seen yéene ji rafet ji li seen yitte lépp suñu borom gàttanu la leen ak tawféex yombal na leen lépp ba seen yéene ji àgg nu gën a rafete nu mu gën a mate mu ne loolu mooy li ci am solo mu ne gannaaw yéene ji lépp lu baax la yëngatu bi lépp lu baax la kon loolu rek mooy li ci am solo kon am nañu am xel mu dal baax ñu ngi sant ak gërëm ne ñoom bu buñ nekkoon a jekk rek fas yéene nekkal sëriñ bi mu ne sëriñ bi boolewuloon dara boromam ak yonent bi mu ne loolee nag lu ñàkk-ñàkk solo lu ñu doy di doy di rek la ñu fas yéene teg suñ tànk suñ kéem kàttan nekkal sëriñ bi